le doyen Mayabé Mbaye ci ay kàddu doyen bismillahi rahmaani mbokk yi papa wala mag walla maam wala xarit moo jóg di jooy lu koy jooyal mooy li xew sunu réew mi te olof di wax ni lu def waxu lu ay di njàmbat réewu droit mooy sunu mébét ci lañu bëgg a dëkk ku ne def lu la neex nangu nañu réew mi jóg teg loxoom ba kenn ku ne mu teg la ci yoon waaye bu ñu demee ba ci réew mi politique yóbbu nguur gi foo xam ni boo doon dox ba takk bracelet Pastef sax ñu jàpp la mbir maa ngi bëgg commencé jaaxal nit ñi mbaa bokk nga dem di ñaan ñu jàpp sa mbokk ci benn fànn bu la jaaxal yow amoo ci lu dul nga jóg ni maa ngi dem seetu ko pour nga seet ko dafa am procédure booy jaar dem di ñaani permi sax pour seet sa mbokk ñu jàpp la mbir maa ngi bëgg jaaxal nit ñi mbaa bokk sa mbokk bi ñu jàpp te bu nekk commissariat du commissaire koy jox añ du alkaati koy jox añ soo góotee añ yóbbul ko ñu jàpp la mi ngi bëgg a jaaxal nit ñi ñu bëgg nag nguur jàpp yoon la waaye nguur jàppam na ko teg ci yoon bu ko politik sëlmal ba lu ko neex def fa mu jëm du baax baaxul ñu leen di ñaan ñu dellu ginnaaw te xool xam ni njaboot gi ñuy jàpp dañu am ndey am baay am maami rakk ak doom ni ñoom ñu amee ndey ki baay seen doom ngi seen kër nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñu toog seen kër ndegam jàmm rek lañu la ñëpp di wut ginnaaw loolu di ci gën a jaaxal nit da nga daan toog gis télévision ñu jàpp jaaykatu drogue jàpp reykatu nit jàpp lépp buñ koy wane télévision sax dañ koy wane gannaawam la ñuy wane kenn du wane kanamam xale yi nga xam ni pour des raisons politiques ñu jàpp ñu jël seen image ni ko fang ci internet bi ñu leen di ñaan ñu arrêté loolu nu mu gën a gaaw d'abord parce que loolu ñaaw na rafetul bu dul dara sax seen présomption d'innocence ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu leen di exhorter encore une fois pour ñu respecter xale yooyu li ma ci gën a jaaxal mooy yow xale bi ñëw nga jàpp nga ko ndare ñun ñu ngi yaakaar ni ni nga ko jàppee sax du yoon ci wàllu politique kese nga ko teg xale bi nga jàpp ko gundu ko sonal ko ci commissariat bi mettre que dans des conditions inhumaines pour ne pas dire torture Cheikh Omar trop benn exemple bu leer a ngoog ba ci image daw ci internet ñuy ñaan weesul les mille soixante deux détenus ay xale yu ndaw yu war a préparer seen avenir war a toog seen peggu ndey di góor wala wuti njariñ suñuy góor war a toog seen pegg ndey suy jigéen wala yor seen kër ci ñi ko ci tollool nanu leen bàyyi nu mu gën a gaaw ñu delluwaat seen biir kër te politique bi déroulé ni mu war a déroulé dans la franchise et dans la droiture léegi nag pexe amul ku la ëpp doole jaay la doole fekk la daal des conditions yu kenn xamul jàppale la arbitrairement dugal la amoo beneen pexe lu dul grève de la faim ñi nekk def di grève de la faim sonn nañu nguur gi nag mi ngi tan xam lu yàlla na fi yem yàlla na bu mu jur lu kenn dul xam bu ñëpp di taf gémmiñ ñu leen di wax ni nanu xalaat sooru xale yooyu te yeewi leen bàyyi leen ñu dellu seen kër te mbir mi dox ni mu war a doxe incha rabbi léegi nag Yolande dafa wax léegi ci benn mbir gis Sénégal wax na ci ñu dissoudre Pastef wax na ci chef d'accusation yi ñu teg ci kaw Ousmane Sonko Sénégal li ma ci gën a jaaxal mooy Sénégal dañuy bàyyi cause topp ci conséquence di wax suba ba ngoon mbir bu am ba ngeen gis conséquence yi am na lu ko indi Ousmane Sonko dafa woo population bi pour ñu jël seen benn droit constitutionnel à savoir résister sur ce que fait le régime mais ñan ñoo dee diggante mars tey ñi dee diggante mars ak ñaanu ñaanuñu nag kenn dee mais ñan ñoo dee ñun manifestants yi ñoo dee ñaanu benn force de l'ordre deewul maanaam kon ñun ñi nga xam ne ñoo jóg di manifester suñu droit constitutionnel à savoir la résistance par une marche pacifique ou quoi que ce soit ñun ñoo jëloon di tirer suñu kaw bopp di rey suñu bopp kon ñun ñoo di woon di rey suñu bopp après ñun lañ jàpp nii lu tax ngeen rey seen bopp jàpp suñu leader ak chef d'accusation mm-hmm. ma ni wax dafay yenu maanaa wala dox bu dofee nopp yi koy dégg nekk nopp nit mm-hmm. ñu teg ko ci kaw Ousmane Sonko ñoo ñëw dellu ci si parti Pastef parti boo xam ni kenn mësu ko accusé ci dara kenn mësu ko juge ci dara kenn mësu ko condamné ci dara xëy suba asalaamaaleykum waaleykum salaam nga parti bi da koy dissoudre waaw ñi ci war a dox ñu ci wax comme ni ko yaram waxee ñu ngi koy def ñu bëgg nag waxtaan ñun mag lañu suñu wàll jeex na mënoon nañu farankulaayu fale toog te naan rek xale yi góorgóorlu leen dina leen ñaanal waaye xaleel bu amee jom loxoom set mu am lu mu bëgg loo xam ne xëy na sax bala muy tegu moom du ko fekk dana fekk mu magan waaye muy xalaat la topp ci ginnaawam ñun mag ñi muy ñu ko seedaan ñuy jóg di leen jàppale ñaanunu leneen laajunu l'impossible dañu bëgg simplement sunu réew tegu ci kaw yoon nit ku ne jot àqam jot yelleefam ki nga xam ne moo loonu fay président na gouverneur ki nga xam ne opposant la dañ ko bàyyi mu opposé wu ki nga xam ni nee na moom sax politique intéressée nañ ko bàyyi bu toog këram te jàpp ñaamro mais na lépp jaar ci yoon loolu kese lañuy ñuy laaj on ne demande pas ñuy ñaan ci réew bi jàmm bala ñuy jeexal waaye wax ni lii ñuy dénoncé ci yoonu jàmm la tegu mooy bàyyi détenu politique yi arrêté barricade kër jàmbur yi bàyyi xale yi ñu ñibbi seen kër may parti politique yi ñu évoluer dox li ñu war a dox dans dans dans les chartes du droit jàmm ni ngooy ma waxaat tey ni am na baat yu ñuy déglu mais baat yu ñu sew ni tekk tey jaaxal ñëpp. waaye ba tey ñu ngi leen di sonn di wax neen il n'est trop tard wax jot na wax leen jàmm am ci réew mi ñu ni nag jàmm ñaar ñoo ko yor dangay jël li nga moom lépp muy sa droit nga bàyyi nit ki li mu moom lépp muy ay droit am doo jël li nga moom ba fii li jàmbur moom ba pare bëgg jàmm jàmm du am mm-hmm. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def xewal ci réew mi ñii ñuy waxal yàlla nu dégg xale yi yàlla leen yàlla génn ak jàmm yàlla na réew mi naat élection yi di ñëw incha allah ku ci war a bokk bokk ci ñépp nag rawatina Ousmane Sonko ñuy ñaan sunu borom bis bu ko ci yàlla boolee yàlla gañaloo ko au premier tour ñuy jël réew mi teg ci kaw yoon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf Euh, jërëjëf suñu baay euh, Mayabe Mbaye kaddu yi am na solo ñuy jox suñu kaddu suñu mbokk ki nga xam ne moo di Mama fay nekk euh, mbokk ci suñu xarit suñu mbokk Mortala Gueye nit dof nga xam ne caabi da ko fële ginnaaw fële ci rëbës Mama ñu ngi lay jaajëfal. merci salaamaaleykum donc di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp di leen remercier waat parce que mooy li may wax tout le temps. bu ñu si bitee di yëkk li nga xamante ne moom la euh, famille yi di dund c'est parce que euh, presse bi ñu ngi fi pour euh, pour pour di ko jàllale. alors du ma gudd parce que lu si bëri wax nañ ko déjà mais peut-être ñaari mbir yoo xam ne bëggoon naa ko leeral à part benn information boo xam ne bëggoon nañ ko joxe aussi mooy tout le temps dañuy wax que dañuy bëgg di leeral que ne bu ñuy taxawee fii tey di waxal détenu yi c'est pas parce que dañoo jàpp ne ñooñu ñu tëj ñoo ëpp droit. que yeneen détenus yi mais dañoo jàpp ne lañ leen jàppee nekkul loo xamante ne mérité na cas de torture comme ni nga ko waxee te sax cas de torture sax si lu ñu la mënti jàppee nekkul loo xamante ne sax loi Sénégal da koo nangu mais aussi jàppee nañ leen yoo xamante ne yenn yi sax si des délits mineurs mën nañ ko considérer noonu am si yoo xamante ne bu doon nit ki flagrant délit lañ ko yóbbu sax amaana kon instant yi ñibbi na bu kër këram ba mu ngi si leneen. mais aussi euh, donc bu ñuy wax c'est pas parce que dañoo jàpp ne ñii ñuy waxal dañoo ëpp baat ka ñeneen ñi mais dañoo jàpp ne ñu lu toll loo xamante ne boobu léegi war nañ faa mën a nekk. grève de la faim bi aussi saa ñu ko waxee nit ne mais la moo tee ñu arrêté grève en danger. mais nit boo koy dóor bantu bale mu lay seetaan nga jékki-jékki jël bant ba mujj bi sax nga jël weñ bu yàggee mu fipp na xam na ne bakkanam mi ngi si xottu gerte te tey euh, détenus yi nekk en grève de la faim nekkuñu dañ leen jàpp tey ñu commencé grève de la faim en tout ñi si ëpp parce que bu ñu jëlee kaaw ku mel ne Nit Doff ku mel ne Hannibal Djim ak ñeneen mais bi ñu leen jàppee léegi ëpp na 6 mois am na si ñoo xam dugg nañ seen septième mois am na ñoo xam dépassé nañ ko te dañu nekk ñoo xamante ne mandat de dépôt lañ leen defal kenn attew leen kenn jàppalu leen date boo xamante moom lañ leen war a jugé et aussi saa ñu demandé li nga xam ne mooy liberté provisoire dañ leen koy bañal maanaam dem nañ ba recours yi nga xamante ne moom la leen yoon may yëpp jeexal nañ ko benn la dese mooy li Yolande wax sànq mooy ku si nekk fi nga nekk yaa xam nan nga mën a xeexale sa bopp dem nañu ba ñoom ñu nekk si biir amatuñu leneen lu ñu mën a def loolu grève de la faim te grève de la faim yooyu defuñu ko ndaxte dañoo bëgg dañoo am envie xiif ak mar ñun ñi di woor sax xam nga ne ragal yàlla moo tax ñuy woor mais nekkul dañoo ñemee xiif ak mar donc tey ñooñ dañoo dem ba nga xamante ne amuñu beneen solution moo tax ñu dugg si loolu te grève de la faim boobu bu ñu jëlee a a wax ndax ñoo xam xam naa ñu nekk fa tey dañu leen dajale pratiquement ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo bokk cellule ñu si bëri si ñoom am na ñoo xamante ne actuellement seen état de santé dafa laaj ñu évacuer leen pour mën leen faj sauf que loolu dafa lu ñu leen ko dañu leen fa bàyyi bëgg leen forcer perfusion ñoom nag ñu décidé ne perfusion yooyu tamit kenn dootu leen ko forcer parce que ñoom xam nañ ne am na si ñoo xam li ñuy yëg soxla na leneen lu dul perfusion tey boo demee rëbës bu njëkk rang bi daa mës a yàgg a metti moom mais tey boo demee temps bi ngay def si mbedd bi ci famille yi nga xamante ne ñoo xam ne dañuy jógee si dëkk yu sori yow boo ñëwee da ngay sa bopp ku si nekk bu la expliquer doomam si yan lan lañ ko jàppee mais yow da ngay fàtte yow kaaw ki nga xamante ne moom ngay seet situation bi fa nekk métti métti boo xam ne yow mi seet yow parfois tu te demandes yow bu dee yow miy si nit yaa nekk situation bi mais ki nekk si biir kon na lay dundee ndax mbedd ba mën nga faa def 2 heures 3 heures ba 4 heures temps si mbedd bi kese balaa ngay dugg bay renwaat bay gis détenu bi ngay seet te détenu boo ko gisee xam ngeen temps de visite yi li yàlla xam doy na balaa ngaa xam ndax nit ki ngi si jàmmam nekkul si jàmm sax temps de visite bi na

gëm nañ ne incha allah dina yombal famille yëpp ba ñu mën a dékku li nga xamante ne moo tegu seen kaw ba incha allah ñu gis yeneen porte de sortie merci beaucoup. kon ñuy wax mbokk yi war a jël kàddu ñu gàttal def ñetti simili rek baax na ndax